ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaan jaa ñaan suñ borom mi nga xam ne mooy boroom kattan te mooy boroom man te mooy borom sañ-sañ lépp loo xam ne mooy ay rëcc-rëcc yoo xam ne def nañ ko ñun doomu aadama yi moom baaxam yàlla nañu ko jéggal te xam nañ ne ku sawar ci jéggale la te ku mën a jéggale la lépp loo xam ne itam mooy ay àq yoo dox yoo suñ diggante ñu ngi koy baalu àq di leen ko baalu àq yàlla nañ ko suñ borom boole baal te boole nu jéggal ñun ñëpp te gën noo saxal ci li nga xam ne mooy li nu digal te bëgg ñu nekk ca te mu doon loo xam ne mooy suñ njariñ fi àdduna si ñu nekk ak alaaxira yi ginnaaw loolu nag ñu xam ne ñi ngi jublu si weer wu tedd weer woo xam ne feeg ay fan yu néew danañ ci dugg mu doon weer woo xam ne suñ borom màggal na ko ndax màggal ga feeñ na ci ne bokk boole na ko ci beer weer yi nga xam ne suñ borom da leen a tam doon loo xam ne lu mata a bàyyi xel la muy weer yoo xam ne yu mat a góor la ndax yoo xam ne suñ borom moo ko orbal teg ko fa mu ko teg kon yaakaar naa ne lépp lu ci góor doomu aadama góorgóorloo ci def ko ci lu baax dana dana ca dajeeg lu kawe njortam yàlla ñu suñ borom dimbali nag bañ màng weer wu tedd woowu nga xam ne mooy ñëw muy weeru rajab te xam nañ ne suñ tuddee rajab am na lu parce que am na lu rëy lu nekk ci jul ci ci ci weeru rajab loo xam ne ci bokk na ci keno yi teew taw taawu lislaam te mu doon loo xam ne kon yaakaar naa bu ñu ko jubloo war nañoo delluwaat gën koo nafaraat gën koo fàttalikuwaat gën a xam lan la lamboo ngir man koo doxale ni nga xam ne ni la ko suñ borom bëggee te loolee suñ borom mën nañ ci dimbale yàlla nañ ci dimbale ginnaaw loolu itam ñu xam ne weer lii nga xam ne mooy mooy lii suñ borom wàccee ci weer wu wii dañuy gën a woon woon ne lu rëy la ci suñ borom wàcce gim ko wàcce ci weeru tedd wi ñaareel ba itam xam nañ ne suñ borom lim daa digal jàmm yépp bu leen koy digal Seydina Jibril lay lay wax la moom lay wax li mu koy wax mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nu ko wax ko ko bu ko defee moom it mu jottali ko ñi nga xam ne la ko war a jottalee waaye lii moom dafa mel ni suñ borom bëgg nooy won ne na lu rëy la lu mata bàyyi xel la lu mat a sonne la tax na bi nga xamee ne mi ngi ko bëgg a waral ci ñun yonent bi ci boppam la woo mu ñëw mu ñëw ba ci moom ba mu ñëwee ba ci moom itam ba mu ko digalee la mu ko digal waxunu moom lim du digal lan lim ko digal lan la dafa wax ne rek fa awxa ila abdihi ma awxa mu doon loo xam ne kon loolu war naa tax kenn ku ne war a bàyyi xel lii nga xam ne suñ borom bi mu koy digle yónniwul Seydina Jibril waaye dafa woo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw ba ca moom mu digal ko ko ne ko digal ko jaam yi te bam ko ko bam ko ko digalee mu ñëw di ñu nett li nam nam doxe suñ borom tuddul la nga xam ne mooy lim ko digal waxuñu ko benn yoon loola nag kon doon loo xam ne kon lu mat a lu mat a bàyyi xel la ndax xam ne lu toll nii kat suñ borom waral ko ci doomi aadama yi te bam koy waral dafa woo yonent bi sallallahu alayhi mu ñëw ba ci moom ba mu jëwee ba ci moom itam ba mu nu koy nettali waxuñu moom suñ borom lam ko doon wooyee waxuñu itam lam ko digal mooy lan dafa doon wax rek ne am na loo xam ne wax na ko ko kon loola kon mu doon loo xam ne war nañ ko bàyyi xel ci jéem a xam loolu lan la jéem a xam itam nan nan lañ ko war a taxawee nan lañ ci war a war a war a war a doxee loola nag mooy julli juróom xam nañ ne ñi ngi ko farataal ci ci jullit yi ci weeru rajo bii nga xam ne ay fan yi néew danañ ci dugg kon dana dana rafet ñu jéem a fàttalikuwaat julli mooy lan ak yan taxawaay lañ ci war a taxawee ak nan lañ ko war a defee ci ni nga xam ne ni la ko suñ borom bëggee ñu defee ko noona loola nag tax na julli doon loo xam ne lu rëy rëy ci lislaam la doy na rek lu ñuy wan ne lu rëy rëy la ci lislaam yonent bi sallallahu dañoo xamal ne julli day mooy kenoob diine maanaam mooy li nga xam ne mooy liy taxaw taxaw li dëgëral diine mooy li nga xam ne itam mooy wane ne ka ka koy taxawee te di ko taxawee ci ni ko suñu mbirum bëggi mi ngi taxawu loo xam ne lu màgg la ci lislaam loola nag ba tax na mu yonante bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne diine julli day moom bokk na ci keno keno mooy kenob diine sax la wax mooy kenob diine gépp koo xam ne yaa ngi yaa ngi ciy sonn di ko taxawee ni nga ko war a taxawee di ko defee ni ni ko suñu borom bëggee na nga xam ne yaa ngi taxawu diine yaa ngi doxee yaa ngi dax yaa ngi def sa warugaar ci ci diine ni nga ko war a defee bokk na ci li nga xam ne itam moo nuy wan ne julli yi juróom lu am solo la lu mat sonne moom mooy farata ji nga xam ne suñ boroom bi mu ko waralee ci jàmm bi du ko tegg ku mukk waaye nag bi mu xamee ne doomu aadama ji itam du ne waxtu wu nekk lam man nam ko na na ni mu ko mënee rek la koy mënee waxtu wu ne léeg-léeg dana am ay doy ak ak ak ak ay ay loo xam ne dana ko dugg loo xam ne li mu war a taxawee du ko mën a taxawee ni mu ko war a taxawee waaye teewul nag suñ borom sàmmoonte naaj ci loolu boo boo feebaree du tee julli war na la boo nekkee bu doonte dañoo nekkoon ci xara itam du tee julli war doonte dañoo nekk ci ab tukki itam julli du tee julli war mooy julli kon bu xasee war dootu wàcc mukk waaye nag suñ borom dalaa defal ak jàppandal ci man nga koo defee kenn waxtu wu nekk ci situation ba nga toll ci ni ko manee rek nga koy defee loola nag moo tax kon mu doon loo xam ne lu mat a bàyyi xel la ndax xam nañ ne asaka léeg-léeg du war doomu aadama aj màkk itam léeg-léeg ñu xam ne du war doomu aadama waaye day koor itam xam nañ ne léeg-léeg du war doomu aadama waaye léeg-léeg sax maanaam mu doon foo xam ne dëkku du war maanaam du ko sañu koo def dana doomu aadama dana toll foo xam ne du sañ a woor loola nag jigéen ji la ñoom danañ àgg foo xam ne dañoo sëñuta wóor waaye moom yeneen julli moom waxtu wu nekk day war doomu aadama ji doonte jigéen yitam am na am na loo xam ne moom yàlla baaxee na ko ko mu ne am na jamono yoo xam ne moom julli da koy wàcc moom itam kon loolu ñu xam ne baaxu suñ borom la goo xam ne moo ko xéewale jigéen ginnaaw li nga ginnaaw bokk na bokk na ci li ñuy won tam ne julli lu am solo la moo di ne suñ borom jëf yi nga xam ne moom la waral ci doomu adama yi jim ci njëkk a xool ndax jaar na nam war a jaar ndax doxe na nam war a doxe mooy julli bu fekkee ne doxe na ni mu war a dox doxe jaara ni mu war a war a war a jaare yeneen jëf yi du ko du ko bàyyi xel du ko du ko seet waaye bu julli baaxut moom yeneen jëf yi du ko xool sax ndax xam na ne comme comme li nga xam ne mooy kone kene bu baaxul la ca tegu wërta mën a baax léegi li ci teg bokk na ci li nga xam ne itam moo ni wan ne julli lu am solo la moo di ne suñ borom julli mooy farata ji nga xam ne suñ borom dañoo digal ne seeni doom na ngeen leen ko xamal ci buñ tollee ci juróom-ñaari at buñ àggee ci fukki at nag da ngeen di na na ngeen leen di sañ ngeen leen la bàcc bàccal ngir ñu do ñu di ko taxawee loolu lépp nag xam nañ ne asaka waru ca waru waxunu waxuñu ko ci asaka waxuñu ko ci aj màkk waxuñu ko ci woor kon loolu lépp nag di ñu woon ne kon julli lu mat lu mat bàyyi xel la te jiima góorgóorlu ba di ko taxawee ni nga xamee ne ni la ko suñu borom bëggee ñu taxawee ko bokk na ci li nga xam ne moo nuy woon ne julli lu am solo la mooy li ñu wax léegi nii mooy yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne na ngeen xamal seeni doom julli nan la ñuy jullee mooy kon da ngeen di ànd ak ñoom di dugg ci jàkka yi di dem ci waxtu pala barabu julli di julli yi bu ngeen nekkee seen kër yi itam bay julli nangeen woo seen njaboot ñu ànd ak yéen bokk julli doonte gone yu ndaw yee la ndax loola mooy tax ju xam lan mooy julli loola mooy xam mooy tax ñi xam ñi ta am solo julli mooy tax ju góoma góorgóorlu ci dem di ko taxawee ni nga xam ne ni la ko suñ borom bëggee bokk na ci li nga xam ne nag lu mat a bàyyi xel la te loolu suñ borom teel nañu cee yee mooy xam ne góor góor la jigéen jigéen la kenn ku ci nekk am na taxawaay boo xam ne moom nga war a taxawee te taxawaay boobee mënut a ñàkk loola nag tax na ba lislaam teel a soññe ci ne a taqale góor ñi jigéen ñi ba kenn ku xam ne man lii laa kenn ku ne xam ne itam lii laa war a doxe kenn ku ne xam ne itam fii laa war a jëm loola lu lislaam teel a soññe la lu mu teel bàyyi loo xel la bokk na li nga xam ne itam moo nuy wan ne julli lu am solo solo la mooy Abdullah ibn Mas'ud dafa mas a laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko jëf yi nga xam ne moom la ñuy jëfal suñu borom yan yan jëf moo ci gën a moo moom la suñu borom gën moom la suñu borom gën a bëgg mu ne ko julli ci waxtoom bokk na ci li nga xam ne moom la suñu borom gën a bëgg ci doomu aadama mu di ko taxawee bokk na ci li nga xam ne moo nuy wan itam ne julli lu am solo la ci doomu aadama moo di ne lépp bépp bakkaar boo xam ne doomu aadama mi ngi koy def bokk na ci julli bokk na ci li nga xam ne mën na koo faral mën na ko faral lépp loo xam ne mooy iteem yitam jum mën a doon ju ko jaaxal ci boppam wala joo xam ne ñor na ko bokk na ci li nga xam ne moo ko jàppandal itteelu joojee man koo jotloo ci li nga xam ne moom la bëgg bokk na ci julli doonte doo julli farata waaye da nga jàpp ba mu set jàpp ba jàpp-jàpp mu sell ta wéet ak su borom julli ñaan rakka ñaan ko lépp loo xam ne nekk na ci yow suñu borom mën na koo dindi ci kon loolu lépp li ñuy won ne kon julli lu am solo la bu nga li ñuy won nag ne julli lu am solo la ci mën a doomu aadama ak bakkaar yi nga xam ne moom la nekkee moo di ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne ndax jàpp ngeen doomu aadama joo xam ne ak ndax ak dex dafa nekk ci buntu këram wax wala dafa nekk ci këram waxtu wu nekk mu ci mu ciy sangu ndax bis bu set mu sangu ci juróomi yoon ndax jàpp ngeen ne kookee tilim wala dalay dalay daray taq-taq dalay sax ci jamam ci yaramam ñu ne ko déedéet jàpp kookee kay kenn kenn mënut a jàpp ne daray taq-taq ak daray tilib mën naa des desati ci yaram mu ne leen loolu nag mi ngi mel ni comme julli yi juróom ku koy taxawee ni nga xamee ne ni la ndox ma di satale sa jëmm noonu la julli moom itam di satale ni la noonu la lay satale ci bàkkaar kon loolu kon lii mu dekk mooy nañuy bàyyi xel bu baax a baax ci taxawee julli ni nga xam ne ni la ko suñu borom bëggee ci woo ci melokaan wa nga xam ne ni la ni la ko sàncee te defe ko itam ci waxtu yi nga xam ne moom la bëgg ñu defe ko ca ndax loolu mooy tax mu wér faw dañ koy taxawee te defe ko ci waxtu yi nga xam ne ni la ko bëggee di ci la ci la bëgg ñu def ko ca defe ko ci melokaan wi nga xam ne moom lañ bëgg moom la bëgg itam ñu defe ko ci noona loola mooy tax ñu man caa am ngërëmam suñ borom mi nga xam ne mooy jàpp mooy borom jàppandal yàlla na ñu dimbale ba julli mii nga xam ne àggale na ko fii mu ko àggale rëyale ko nii mu ko rëyale ñu di ko bàyyi xel ñun waxtu wu nekk te muy dimbal te muy ñuy dimbale bañ koy defee ni nga xam ne ni la ko bëggee ñu defee ko noona ba li nga xam ne digg nañu ko ci te xam nañ ne suñu borom li mu diggee lu ne du dana ko def ndax am amum ak tële amu ko ku amatul tële ku am tële mooy diggee ba noppi xëy na léeg-léeg doo ko mën defee ni ko war a defee waaye suñu borom nag dafa amul gën tële comme amul gën tële nag moo tax lépp loo xam ne diggee na ko dana ko mën def ni mu ko war ni mu ko bëgg defee dana ko def itam ci nu kawe ñu kawe njort noo xam ne sax moom lañ koy yaakaare ñun doomu aadama yi ci suñ gis waaye nag loolu moo ne woon ne kon nañu nañu suñ borom nañ bàyyi xel bu baax a baax julli te di ko taxawee ni nga xam ne ñi la ko suñ borom bëggee ndax suñ borom moo ko àggale fi mu ko moo ko réyale ni mu ko réyale kon nag yàlla nañu suñ borom dimbale bañ koy taxawee ni nga xam ne ni la ko bëggee di ko taxawee itam ci waxtu wi nga xam ne moom la ko santaane te daje cee ngërëmam te loolu suñ borom mën na ko jàpp na ko yàlla nañ ko defal ginnaaw loolu itam ñu ñaan Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi nekk Serigne Touba te gis nañ ne wala xam nañu ne te gis xam xam nañ gis nañu itam ci ay taxawaayam yépp lépp lu muy tekk mooy fas yéene taxawu diine ak fas yéene taxawu doomu aadama yi nga xam ne ñoom la suñu borom sant diine kon loolu ñaar yooyu nga xam ne mooy itam nag yàlla na ko suñu borom gën a jox kàttan gën koo jox ak man gën koo jox ak tal ba lépp loo xam ne yéene ko ca mu def ko ci definoo kaay njortam te daje ci ngërëm suñ borom tey ànd koog moom képp koo xam ne lislaam mooy sa tool tool yi itam lépp loo xam ne yéene nga ko ci lislaam te bëgg ko caa def yàlla na suñ borom jox kàttan ak man ak tal ba nga mën koo defee ni nga ko bëgg a defee ànd koog ñi ko war a àndal daje ca ngërëmu suñ borom loolu suñ borom mën na ko jàpp na ko yàlla nañ ko defal rabbana atina fi dunya xasanatan wa fil axirati xasanatan wa naa azab naar